sallallahu alaihi wa sallam omo wiyantuno on baɗɗo ɗum ɗon on desɗo walla desaɗo o wiyamo barakallahu laka wa baraka alayka wa jama baynakuma bi hayr oɗon duwawu emin dumano ɗum oɗo muntaka mo anduɗa o jeyama e sukaɓe ɓe anduɗa min jangguiniɓe famɗi noon ko wayno makko wona ko jibinɗon mo ko ɗum tagui emin haala ɗum walla komin ari ga nokkuma komin tawimo emin haala ko wela ko welamo ala mi haalay ko ganduɗa ko ɗum min andite ɗum min gomdini e makko saabu gila min andimo koyngal makko o tiggitani e l'islam somin waynodiri rek mi o ala dakar kono so woni dakar rek kala ɗo min waɗi programme somin yeccitima caggal mi wiyaymo omo jooɗi e nder musidal ngal te ɗum ɓooyi gila omo janga école mahtar diawhar mahtar ndiaye ha min woni école imam ali fof kala ɗo min woni ko korka programme uji ɗi fof mi yiyaymo qiyamul leyli fof mi yiyaymo ha joni emin dowa allah subhanahu wa taala ko naati ko yo allah wallumo hen yo allah waɗanmo hen barke yo yo wimi somi andino mi naata hen gillaw kono emin wiya heddiɓe ene inchallah otoga kul yoɓe nandu comme muntaka inchallah uh, emin siftina ɗo haluji hal hal komin haalta ko noon onon fof min haaldani e moɗon ko muntaka goto hande kanko haaldaymi onon fof on ari rek oɗon tawa pour oɗon heeɗo fof komi haalata ko ko muntaka jeeyi ko adi min wi muntaka hal tafakkarta fi lhayati qabla ziwaj beele an muntaka oɗo a miijima hadema resde a miijima oɗo oɗo gurdam oɗo adunoma wonɗen hoko tagi arɗo nde eɗen wuura ɗum ko so tawi ko gorko so tawi ko debbo hade makko naatde e dewgal o foti o namdo hoore makko o miijo e ɗam ɗo gurdam ngal arɗen e oɗo aduna eɗen wuura en andan gadden en ganden en andadi en gaddani ɗo koye men ko allahu subhanahu wa taala addi en ɗo kono holko tagi o addi en ɗum goto foof yo miijo hen o miijo kadi hal tarifu ya muntaka mana ziwaj mbeɗa aɗa anndi mana dewgal dewgal holko woni dewgal est ce que enen en sikki sen yehi hannde galleji dañi caɗele dañi probléme par ce que en yahay rek liggoɗen dañen haalis après aren wiyen baba mi yiɗi resde walla debbo o timmi resede après aren resen gasi a ziwaju ibada so tawi a dañi a waasi a yiɗi a dañta caɗele e dewgal ma a dañta caɗele e galle ma an e joom suudu ma on dañta caɗele debbo o e an on dañta caɗele on andayi azziwaju ibada hono no julde yoniri ni so julde yoni julɗo holno watta o hebloto juula so korka yoni julɗo holno watta o horay so yaade makka yoni julɗo holno watta o yahay makka ɗum ɗon so dewgal yoni a wonay dewgal gorko walla debbo ganda ko dañata e julde ko dañta e korka ko dañta e yaade makka ko ɗum dañta e dewgal par ce que ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam ñimtinten e dewal e resde kanko nelaɗo wi wa inna min sunnati annikah faman ragiba an sunnati falaysa minni yimɓe tato ɓe jooɗima eɓe yewta hen goto wi min mbiɗa yiɗi nadde aljanna yimɓe ɓe fof ɓe wi minen fof koye aljanna min yiɗi nadde ɓe wi kono enen en rewani allah kono nanna en aljanna en rewani allah a a bon a ballen ma de nde dama ɗon tarkis rek dem dama yakar on ne ñifitoog ñif ay pël laña waɗama bugon ko def ci pël mais il paraît am na olof ah boobu lay gën a neexal parce que pël bi dama doon jéem rek pël bi dama doon jéem yàlla xam na ko dégguma pël bu baax mbokk yi ñetti nit dañoo ñëw kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñetti nit ñu ne dañuy laajte yonent bi naka la jaamoo yàlla naka la doon jaamoo yàlla naka ñu ne leen ah yonent bi day day naafi la guddi après mu tëdd nelaw day woor yenn saa yi après mu dog après day jege soxnaam yi ñooñu lu ñu leen wax oyof ci ñoom trop trop trop ñun yaakaaroon ne buñ ñëwee fi dañuy wax yonent bi du nelaw guddi ñu yaakaaroon ne buñ ñëwee fi dañuy wax yonent bi day woor bis bu nekk ñu ñëw fii ñu naan ñu day day nelaw guddi tuuti su bëccëgee yenn saa yi mu woor yenn saa yi du woor loolu daal dafa tuuti ci ñun kenn ki mu ne xam ngeen lu xew yonent bi yàlla baal na koy bàkkaaram su ko neexee mu julli bu ko neexee mu bañ a julli waaye ñun yàlla baaluñu de ndax alquran moo wax inna fatahna laka fatahan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambik wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan yonent bi yàlla nee na ko baal naa la sa bàkkaar yu njëkk baal naa la sa bàkkaar yu mujj loo def baax na loolu nag yonent bi rek moo ko am te terewul mu ngi jaamu yàlla ah kenn ki ne man de dootuma lekk bëccëg damay woor bis bu nekk keneen ki ne man dootuma nelaw guddi damay naafila fu ma toll keneen ki ne man jigéen ñëpp laay fase dootuma takk jabar ndax jaamu yàlla mbokk yi ñooñu ñett li ñu wax baax na wala baaxul ah aka baax ci jaamu yàlla kii ne man damay woor rek ngir yàlla allahu akbar kii ne man dootuma nelaw guddi damay naafila ba bët set kii ne man dootuma jege benn jigéen jigéen ñëpp laay bàyyi ñooñu li ñu wax baax na waaye yonent bu mu ko déggee daf leen woo bay ñëw lu lay wan ne islaam du xel doo toog fee rek nga xalaat waaw naa dajale fii fukki booy jox leen ay kurus rek ñuy wax laa ilaha illa après dañuy dugg àjjana lu baax laa def déedéet déedéet déedéet déedéet doo dem rek nga ut fee say oto nga ne da ngay dem ziyaara ji ngeen dem ziyaara ji benn waaye ngeen rey foofu ay ñay ay gaynde ngeen lekk ba suur ngeen ñëw ngeen mu ne leen yéen ñëpp du ngeen aljanna déedéet loolu dafa yomb islam du xel gis nga ñii li ñu wax xel la pourtant xel nangu na ko waaye yonent bi bu mu leen déggee ñu wax loolu daf leen woo ba mu ñëw mu ne li ma dégg yéen a ko wax ñu ne waaw waaw ñun ñoo ko wax kay ngir bëgg rek du ko aljanna yonent bi ne leen man sama diine bi ma indi takk jabar def cee bokk wa inna min sunnati an nikah yoon wi ma indi muy dund bi ma bëgg a dund takk jabar def cee bokk ku bañ a takk jabar nag bokkoo ci sama sunna bokkoo ci sama diine kon góor bu amul jabar ngay bëgg ne man ba ba may dee du ma am jabar jigéen bu bëgg a dund ba dee amoo jëkkër na la yëg ne jaar nga ci beneen yoon bu dul yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mbokk jullit yi takk jabar mooy lan al imam abdul hamid xazali wax na ci benn téeréem muy téeréem bu siiw bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko su ngeen demee ci téere ba bind na fa benn tomb benn mawdu mooy limaza natazawwaj lan moo tax ñuy takk soxna ndax da ngay takk soxna parce que léegi am nga xaalis ndax da ngay takk soxna léegi léegi parce que léegi mag nga ndax da ngay takk soxna comme léegi ñun lu ñu tàmm rek mooy xam nga léegi maire bi bon maire bi mag la amatul ku gérer gàlle bi foog bon léegi paa bi paa bi mu may sonal quoi paa bi sax nee na ma moom mooy def mariage bi quoi moo tax paa bi bu defee mariage bi dina gérer mariage bi waaw loolu du tax ni takk jabar bon yooyu yooyu yooyu wax ko daanu sareet la déedéet yonent bi yonent bi moo doon wax ñu takk lan la wax yaa maashara shabab man istataa minkum albaata falyatazawwaj ey yéen ndaw yi yu góor ak yu jigéen ku ci am moyen albaa an nafaqa wan nikah ñaar yi ku ko am na dem takk mooy lan mun ngaa joxe dépasse waaye moralement ndaw si li nga ko indee ci kër gi mun nga ko satisfaire xanaa indi woo ko rek pour nga koy xool mu lay xool eh oo ko ma faala omo laba mu ne la an ne ada laba du loolu moo tax nga indi ko du loolu de danga ko indi pour satisfaire ko pour jëriñ ko pour mu jëriñ la ñaar yooyu boo ko mënee yonent bi nee na nga takk soxna waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne li ma doon wax léegi léegi ci ay tomb yoo xam ne dañ koo tënk di la wax laa tatasawaj hatta taalif maana al xayaa bul takk soxna mu lu dul nga xam dund gii ngay dund lan la laa tatasawaj hatta taalif maana al xayaa bul takk soxna lu dul nga xam dund gii ngay dund jaxasoo bi ngay jaxasoog nit ñi dem ak dikkaat liggéey yéeg ak wàcc gont nga xam responsabilité bi nekk ci dund gi bul takk soxna ñaareel laa tatasawaj hatta taarif maana ziwaaj bul takk soxna doo nga xam sëy mooy lan boo demee rek nga takk soxna xamoo lan mooy sëy li tax ngeen gis xale yi tey ci mbedd yi di taxawaalu tambaambalu amul éducation ñii di tux fi yamba ñii di tux fi cigarette ñii di nekk ay góor jigéen xale yu jigéen ñi di jaay seen bopp lu tax parce que ñooñu seeni waajur xamuñu lan moo tax nit di takk jabar di am doom di ko fi indi parce que am doom responsabilité la kon bul takk soxna dudul nga xam maana siwaaj laa tatazawaj bul takk soxna hatta taarif kayfa tudaafiu an xuquqi zawjatik bul takk soxna lu dul nga mën a défendre sa droit soxna bul am jëkkër lu dul nga mën a défendre sa droit yi jëkkër nga xam ban droit la sa jëkkër am nga xam mu xam yow ban droit nga am li tax léegi suñu sëy yi am problème mooy dañuy sëy te xamuñu kenn ku nekk ban droit nga war a jox sa mbokk bi sa morom xamu ko ndaw si ñëw na ci kër gi xamul lan la war a def lu muy def day jaxase rek parce que xamul lu mu war a def xamul lan mooy ñun tey lan mooy suñu problème mooy kan ko dee sowaar yi moo fittan baabiraado oo suudundu ah kan ko dee oo mojji kala nde o fini o fittani e o moƴƴani o natti fittude busa bu xëyee di bale di baleel maire bi baleel paa bi indi lekk joxe ñu ne ku baax la bis bu xëyee defatu ko ñu ne ko bon moo tax sëyu africain métti parce que sëyu africain du pa du du waa ji rek muus bi ci kër gi sax ci la bokk muus bi muus bi ci kër gi ndaw si buy sëy foog ndaw si sëyal ko moom tamit waaw bu des bu muccaat bi desee foog mu tegal ko muus mi bis bu tegalul muus mi muccaat bi muus mi mu ne kii ku bon la ki sëy su fii bi mu ñëwee ba fii léegi muccaatuma loolu problème la de moo tax jigéen ñi ndeysaan yal na leen yàlla fay sonn nañ ci kër yi trop dañuy encaissé wu lu bare bare bare bare bare bare laa tatazawaj hatta taarif kayfa tudaafi an huquqi zawjatik bul takk lu dul nga xam nooy défendre sa àqu jabar lu mu war def lu mu warul def fu mu war a yem fu mu warul yem lu mu war a wax lu mu warul wax loolu dañ ko war a xam laa tatazawaj hatta tajid man tastatiu tahammulu al iish maak fi darra qabla sarra laa tatazawaj hatta tajid man tastati taxmulul iis maaka fi darraai qabla sarra bul takk soxna lu doon nga gis jigéen yoo xam ne mun naa ànd ak yow di yenu jafe-jafe adduna su neexee ak su naqaree yëpp mu yenu ko allahu akbar bul am jëkkër lu dul jëkkër yoo xam ne mën naa ànd ak yow ngeen di yenu coono adduna su neexee ak su naqaree tey ñaata ngeen di dégg moom day bi mu amee jëkkër jëkkër ji alhamdulilah dafa amoon alal waaye jëkkër ji jékki-jékki daanu rek ndaw si daan ne ko salaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ko miin wi noomi waawi jooni mi netti waawde ah ko heewi min annda falama falama hodde ga guine el doyno wardi anino a wawa tan joni annano a wawa wawi joni a natti waawde holko a saabi amu sabab man maa doon sëy rek sëyatuma waaw loolu mooy la loolu mooy est-ce que loolu mooy sëy maa duggoon damay génnaat déedéet da nga war a yenn responsabilité yi bala ngay dugg ci sëy nga xool kii may sëyal tey mu ngi xëy waaw bis mu ngi xëyee xëyatul nag mi ngi wér tey mi ngi wér kën moo tax islam di wax soo takkee jabar ngeen dem benn jamono rek nga feebar feebar boo xam ne yaakaar nan ne dootoo wérati su ndaw si ne may ma baat islam mu ne boo ko fasee tamit fase bi daganut ndax ndaw si dafa am lu muy daw dafa am lu muy daw moo tax mu bugg ñaan baat islam mu ne déedéet boo ko fasay day ténj bis boo dee day ténj kon lu la ci dugal génnewu la ci c'est pas que man damaa toog ni mu neex ma rek ma dugg neex naa ma génn xam nga tey lu xew Sénégal mooy li ma doon sëy sëy naa ko ba pare da ngay wax xale bu jigéen mu ne ana sa jëkkër mu delloo naa ko ndayam nga ni ah delloo mi nawtimo galle ba makko jëkkër bu ñu ko delloo kër baay loolu la xale jigéen ñi xewal léegi koo ne ana sa jëkkër mu ne delloo naa ko kër ndeyam parce que man kenn du ma yab wala waaye naka sa sëy ba mu ne sëy naa ko ba pare sëy bu ñu sëy ba pare yow sëy bi dañ la ne wane foofu ngay dee loolu moo doon signature bi wa axazna minkunna mithaqan xaliis duggoo fii ngay dee dugg nga ak terminé amul génn suuli rek suuli suuli rek ah léegi nag ay mois la ñuy sëy ay mois ay weer ay fan ak a bëri sëy yuy tas lu tax parce que nit ñi li leen di dugal xamuñu ko lu bëri événement mbedd yi moo leen di dugal événement mu mbedd yi waaw dajeeg benn xale bu jigéen ci benn soirée rek maa nga diwu diwu diwu ba capp-cappal ba sotteeku ay griffe griffe verte jaune rouge yépp di melax lumière yi ne ko jaay jaay jaay rek nga jommi wuu tut tut tut allahu akbar nga jóge fa nag ndeysaan nga commencé nag jël numéro téléphone commencé waaw takk commencé nga dem takki nga ñëw nag damay seetaan benn benn benn benn vidéo ci YouTube sama Facebook lañ ma ko envoyé ma koy seetaan benn waay bu takk jabar benn chinois bu takk jabar ñu dem def feet bi yéeg ci oto yi def lu ne xale yu jigéen bi mu ngi taxaw ci oto bi sol yére yu weex fleur yi kawar gi nuñ ko defaree da guddi jot nag ñoom ñaar ñëw ci néeg bi nag léegi ñëpp dem nañ nag ñoom ñaar ñoo ñëw ndeysaan léegi guddi jot na nag tëdd jot na nag ndaw si daal di jékki-jékki daal di simmi yére bi waa ji taxaw di xool ndaw si daal di teggi luñ defoon ci bopp bi waa ji di xool ndaw si daal di teggi luñ defoon ci ween yi teg waa ji di xool ndaw si dindi luñ defoon ci ginnaawam teg waa ji di xool ndaw si ne nii ba ñëwee waa ji taw lépp la foose loolu moo xew léegi loolu moo xew day takk jabar boo xam ne jour réception bi ak si suba sa dunuroo ngay xool ku traîner est-ce que koo ko aan am nan daani de problème la gis nga waaw loolu nag léegi xam nga lu muy def day wàññi day wàññi mbëggeel bi maanaam bi nga koy gis ni mu meloon ak tey bi nga ko takkee du benn loolu moo tax ñu war a def attention xam nga yonent bi lu mu wax ci loolu iyaakum wa xadaraa u diman qaalu ya rasulallah wa ma xadaraa u diman qaala maratun imraatun xasna fi man bati suu mooy te ndiku leen takk xaw ma nuñ koy waxee takk gattaxu sën gattax gu sax ci sën wala nga ndi huɗo huɗo heesaaji ina rufa ga mbalit yuppete so gawri fuɗii ɗoon ummoto haa dow e kono so a sikki ma ñaam hene gawri he yaa ñaamata holko tagi gawri ndi fuɗata yahay haa yooɗa ayew yaye gawri ndi ummima kono a dañta hen gawri ko ñamda ɗum woni debbo jooɗɗo kono haydara ala nder ndeysan omo yoodi noon kono haydara ala toon sa yo kam nde mi wawa to battali woni ko ɗo gonnoɗa to yimɓe wottoto sa yalti ko wudda suudu ndu a ari hade ma natde yimɓe fof ma nanade fatima uddit saabu allah inchallah uddit a to wannoɗa to yanoɗa kooku mooy jigéen joo xam ne dafa rafet lépp mu ngi ci moom ni mu solo waaye ci biir dara nekk fa boobu nag moo gën a dangereux ci jigéen nga takk jigéen boo xam ne amul dara dafa vide kees kese la xott kese nga indi ko nga xam ne dara nekk amul jikko bu rafet munul liggéey jàngul français jàngul arabe jàngul xamul dara am nga problème moo tax yonent bi mu ne bu gën a dangereux ci jigéen yi mooy jigéen boobu parce que problème la lay indil léegi dafay nekkaat charge sa kaw moo tax yonent bi ne booy takk takkal ku am diine fas far bizaati diin taribat yadaak jëlal borom diine mu yem ci sa loxo boo jëlee jigéen bu am diine da ngay mottali ku am soxna yonent bi nee na sa genn wàllu diine mag na na nga ragal yàlla ci beneen genn wàll bi kon balaa ngay takk soxna fexeel nga xam droit yi mu moom ak droit yi nga yi mu yi nga moom ñaari nit dañuy dencante ñaari jigéen jigéen ak góor góor di takk jigéen dañoo war a xam kenn ku nekk lu mu moom man bu ma xamee li nga moom yow nga xam li ma moom ci jàmm la ni nekk mais lan ngay gis léegi mooy lépp yenn saa yi góor ñi aaki moo ko tey ko seen loxo loo wax ñu ne saa waa yi jot daa saa waa waa yaa doo tuuba ko ngooto ko min bor noto bu la neexee nga toog wala nga dem tubé bi benn la maa koy sol ah loolu du noonu ma la ñuy yoree kër de wala noonu gan la jugirte ndeysaan wala noonu yàlla subhanahu wa taala doon ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma wa min ayatihi yàlla mu ne bokk na ci sama kéemtaan yi nga xam ne su ngeen xoolee rek ngeen xam ne man yàlla may yàlla an xalaqa lakum yàlla nee na ma bindal leen ma defaral leen min anfusikum ci seen bopp laa ko jële kon loo bokk ak sa jabar min anfusikum wa xalaqa minha zawjaha ci aadama lañ génnee jabar lañ génnee jabaram ci faaru gauche bi la yàlla dindi génne ci xawaa boroom xam-xam yi ñu ne lan moo tax yàlla gindi jigéen ci faar gindiwu ko ci tànk dindiwu ko ci bopp lu tax mu ñëw ba faar mu def ko foofu faar fan la nekk ci yow faar fan la nekk ci sa côté ci sa wet koo bëgg rek loo koy wax kaay toog ci sama wet gis nga allahu akbar yàlla jël jigéen ndeysaan mu teg ko sa wet ah mu indi ko ci sa wet ba pare mu ne wa jaala baynakum mawadda wa rahma ñaar yooyu bu amee ci diggante ñuy dencante sëy bi dafay continuer waaye sëy bu amee intérêt comme démb lu ma benn jigéen laaj téléphone mu ne salaamaaleykum ma jël téléphone waaleykum salaam oustaz dama am benn laaj am benn waay boo xam ne dafa nekkoon France mu gis jigéen bu nekk France léegi jigéen bi moom mu xam ne bu takkee jigéen bi day am këyit mu takk jigéen ñu dem dem dem ba jaagu gars yi daal di refoulé ku jigéen ki léegi xam na ne ku jigéen ki dootul amati këyit mu ne dafa bëgg génn ci sëy bi loolu lu lislaam wax kooku la moo taxoon muy takk jabar boobu intérêt intérêt këyit ñaata jigéen ñoo mel noonu bi tey ñaata góor am na Sénégal yu bëri yu takk tubaab lu tax am na ñoo xam ne sax dañoo am ñaari jabar jabar Sénégal jabar fale boo xam ne ñu ne ku nekk Sénégal bi mu ñëw nga noppi xam nga dama dem fii pour liggéey quoi moo takk tubaab pour ma am këy noppi rek day am problème kooku nokk fii noppi est-ce que yi ngeen loolu wala am na la am ñoo xam ne ñu ne fa pour nekk góor jigéen ñu may leen tey góor jigéen am ñoo xam ne dañuy dem église catholique ñu ne bon man dama nekk chrétien dama nekkoon musulman ma nekk ma nekk chrétien ñu génne ma léegi ma ñëw fii nekk révisé Rome ñu may la këy loolu yëpp am na am ñoo xam ne seen këyit carte d'identité tur chrétien moo ci nekk léegi turu jullit nekk du ci c'est parce que dañoo rek déclaré ne léegi ñoom ay chrétien lañ ñu may leen këyit xoolal xoolal ndax adduna ndax xaalis ndax intérêt xaalis adduna nga dee nga bàyyi fi xaalis bi nga ñëw ci yàlla ndeysaan ay loxo yi kese après yàlla dekkil la na yow de chrétien nga woon nga naan wallahi abdullahi laa tudd ah bi nga demee Rome nag loolu ay yu nekk foofu dañ may woo di ma ko wax ne ñoom am na ñu doon àndal noonu lañ def pour ñu am këyit loolu këyit ak dem Europe daf koo jar ah nekk la hawla wala quwwata ba ëllëg nga dem ci sa borom looy wax yàlla lan wala dañoo jàpp ne duñ dem ci yàlla kon nanu xool suñu bopp nanu xool bu baax a baax a baax suñu dund ni ñuy dundee suñu bañee am jafe-jafe nañu dem ci lu ñu sunu borom subhanahu wa taala wax ñu dox la tatazawaj ata tajid aywa jël nañ ko hatta tataallam kayfa tatahammal al masuliya bu takk jabar lu dul nga xam nooy yennoo responsabilité waaw mbokk yi jabar responsabilité la waxuma la jabar ji kese mais après doom yi nag est ce que xam nga doom boo am est ce que xam nga ëllëg yowmal qiyaam waxuma la dara yow balaa ngay dugg aljanna dinañ laaj sa jabar bi noo ko yore woon ba pare ba pare jabar responsabilité la ci àdduna responsabilité allah fi mu nekk nii mun taxaa indi na jabaram su jabar bi xëyee suba mu feebar kan la ñuy woo dañuy téléphoné papa yi ndaw si ah su ordonnance bi ñëwee ku ñuy woo wala su soxna si amee doom ku ñuy woo ana mu tamaa mu ne eh, ma maa ngi fële dëkk ba rek ñu ne boo nekkee dëkk ba nag lu ci suñu yoon wari xaalis bi mu ñëw wala nga naan non damaa man nekk ma fii damaa tukki dama naan léegi responsabilité la yow yaa ko yor waaye noonu nga ko yoree ah yëppam noonu nga yoree diini ëllëg yowmal qiyaamati jàngeen aaya bi waqifuhum innahum mas'uluun dañuy taxawal laaj sa jabar bi ñëw mu ne ah yow yaa doon sama jëkkër de yow yaa doon yeewu fajar rek nga dem jàkk musoo maa yee ak a bëri ci ñun nga nga dégg asalaatu xayru mina nawm rek nga jóg dem jàpp dem jàkk ja nga ñëwaat toog jël sa kurus jabar ji mu ngi nelaw waa kër gaa ngi nelaw nga toog sa kurus nag dafa ne nag yaa ngi ci jàmm nag tey def naa junni astaghfirullah def naa junni salaatu ala nabi sa jabar mu ngi nelaw ba loolu ban njëriñ la am ndeysaan benn paa dafa doon yee doomam fajar mu fëgg buntu bi këng këng këng këng këng kooka la nga jógal julli ne la papa la ikraha fi diin la ikraha fi diin papa bi mu ne ko qu anfusakum wa ahlikum naaran jógal qu anfusakum wa ahlikum naaran gis nga moo tax même jàng bi sax da ngay gis koo xam ne jàng bi banditisme la ci jàng jàngul jub jàng pour nekk bandi waaw waaw jàng pour nekk bandi benn waaye benn sàcc dafa sàcc daw dugg ci jàkka ji mu dégg imam bi di jàng war mu salaati alam nu fekk mu ngi première sàppe alam nuhlikil awwalin mu génn dem deuxième sàpp yàlla mu ne summa nutbihumul axirin mu dem troisième sàpp yàlla mu ne lu tegu ci aaya bi wa kazalika naf'alu bil mujrimin mu génn jàkka bi dem yoonam mu ne maa tey dama yoon nekk julli mu ne moom la ñuy wax waaw ah dafa dugg premier yàlla mu ne alak naa waa premier alam nuhlikil awwalin mu ñëw deuxième yàlla mu ne teg naa ci waa deuxième mu génn jàkka bi yàlla mu ne wa kazalika naf'alu bil mujrimin gis ngeen kon ndeke foog ñu xam mbokk yi responsabilité yu ñuy yenu pour ñu takk soxna waxuma la jabar bi rek waaye doom yi benn borom xam-xam dafa am doom mu am këru étage benn waaye ñëw di yelwaan yéeg ci étage bi doom ji ñëw rek bu max yelwaankat bi yelwaankat bi bëri ngu ci escalier yi daal di daanu paa bi dégg bruit bi ak bool yi ni ñu daanoo paa bi ni nii rek gis yelwaankat bi daal di daanu mu gis doom bi taxaw rek mu daal di ñëw ba ci suuf mu sujjóot moom borom xam-xam bi mu sujjóot ci wetu doon yelwaan muy ñaan yàlla mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga baal ma ndax responsabilité bi man maa ko def man maa yarul woon sama doom bi ba muy def lii ci àdduna bi maa ngi lay ñaan yow yàlla nga baal waaw responsabilité la boo bu la yàlla joxee doom yaruloo ko ba mu nekk benn agresseur ci koñ bi di agressé di jamaate di rayaate yow la yow yaa xamul woon responsabilité bi nga war a jël moo tax doom responsabilité la waaye naka ngay fexee doom jooju balaa muy nekk agresseur kañ la balaa muy juddu naka mooy nga tànnal ko yaayi nga tànnal ko yaayi waaw Omar ibnul Xattaab dafa toog rek benn xale bu benn góor ñëw mu ne ko damaa am doom mu am alal bu bari waaye toppatoowu ma Omar mu ne ndax xam ngeen doom bi gaa yi ne xam nañ ko kay mooy diw xam leen ngeen indi ko njexee addee ko bu yeey bi tungi waa jiw bi addi ñu yow ko ba mu dëgër sànni ko ci kanamu Omar Omar mu ne ko ndax xam nga kii toog nii mu ne xam naa ko kay kii sa alal la mu ne sama papa la ñu ne ko lu tax nga am alal bu bëri bu toll nii toppatoo woo sa papa mu ne sama papa dafa am ñett yu mu waroon def defu ko moo tax man tamit ñett yu ma waroon def du ma ko def ñu ne ha mu ne waaw ñu ne sa papa yan ñett la waroon def mu ne daf maa waroon utal yaay bu baax sama yaay da koo for ci mbedd mi waaw aka bëri ci ñun ñuy for jigéen ci mbedd ñaata nit ñoo fi am jabar soirée lañ xamee jigéen bi soirée mais booy yëngu leen laa dem gis xale bi sa booy booy bi di tàkk laa la wax di gif-gif yi waaw boo jëlee booy buy tàkk foog nga wuti ndox loo ko fayee kuy tàkk kay ku ko tàkk foog nga wuti ndox loo ko fayee wala nga de kenn ku ne non booy bi da doon naaw laa la wax kuy naaw kuy naaw xam nga ni mënoo ànd ak moom ndax yow amoo amoo laaf kon foog nga am problème moo tax terme yi sax terme yi sax diine nanguwu ko booy buy naaw booy buy waay yow def ay feu flamme booy buy tàkk ku dugg ci loolu di nga am problème ku yëbagut booy buy dox booy buy toog waaw buy doxee nga dox topp ko bu toogee nga toog waaye booy buy naaw boo takkee booy buy naaw di nga naaw de di nga wuti laaf de moo tax doo gis quelque temps nga gis nga génn kër gi ngeen ñaar ngeen ànd di naaw parce que dootu leen mën diggoog sa bapp déggu mën diggoog sa yaay su le waa yow ki nga fi indi nag eh an ma addudaa doon eh baba woppoo jàmbur ayo ah ñu naan dañ laa liggéey kenn liggéeyu la koo liggéey doom waaye kenn liggéeyuñu ñun ñoo bañ a jël lu ñu islam wax mu ne ko ñaareel mu ne ko man bi ma juddoo daf maa waroon tuddee tur bu rafet mu ne ko ban tur la la tuddee mu ne joxlaan xam ngeen joxlaan mooy gunóor yooyu di bërëng dem àll bay ci àll bi noonu la loolu mooy joxlaan kono mi doxoo wa ndere kono nu yeton a anda joxlaan kan moo xam fi gunóor yooyu ah kowo wonay ladde ina ƴetta de ɗum ɗo a buloy so yimɓe yeehi allah ladde o ara waɗa ɗum buluji walla nayi ɗi ho walla nayɗi ko waɗi ko a andi joni eyi ko ɗum woni jolan ko noon o iniri ɓinguel ngel ko koowal kowowal o iniri ɓinguel ngel kowowal ko koowo wiyete
ƴeew sonere iniri ɗim kowowal soni tudde domam gunor jolan mune ñetteel mune jangolo mo sama diina omar mune joglen ngeen dem papa ji yow yaa jiib kaani garab gi màgg na foog nga lekk ko joglen ngeen dem kon ndeke am doom responsabilité la da ngay utal sa doom yaay ndeysaan yaa ngeen abdullah ibnu zubayr kan mooy yaayam asma kan kan mooy papaam abubakar ibn siddiq asma day xeex ak euh, abdullah ibnu zubayr day xeex ak xajjaaj xam na ne xajjaaj moo ko ëpp doole parce que xajjaaj bandi la moo ko mën te bu ko jàppee daf koy rey mu ñëw ci yaayam mu ne yaay bàyyi naa xeex bi yaayam ne ko lu tax ne parce que xam naa xajjaaj moo ma mën moo ma ëpp doole dina ma rey mais bu ma reyee damay bañ mu indi la mu indi ma sama kanam sa kanam yow mu may def lu métti te yow loolu da lay métti yaayam ne ko demal xanaa xamoo xar buñ ko rendee ba pare buñ koy fees dootu ko yëg demal nga xeex ak moom bu dee yaa nekk ci dëgg rek Abdoulaye ibn Zubayr di jël armée bi départ dem xeex ak Hajjaj xeex ak Hajjaj xeex ak Hajjaj ba Hajjaj jàpp ko rey bi mu ko rey pare xam nga lu mu ko def li mu doon lim li xale bi doon wax loolu la ko def da koo indi ci kaaba gi wékk ko ci ci kaaba gi la ko wékk ba pare daal di wooy yaay ji yaay ji mooy asma mu woo ko ba mu ñëw mu ne gis nga nu ma def sa doom loo ci wax kontaan nga nga rey nit nga woo yaayam nga ni ko xoolal nu ma def sa doom ndax kontaan nga waaye dafa xamul ban yaay la woo ban yaay mu ne ko yàq nga addunaam mu yàq sa àllaaxira allahu akbar allah mu xool ko ne ko wallahi bu doon yow yaay asma yaay doomu abubakar danaa la rey mu ne ko ñun ragaluñu dee ñun famille bi ragaluñu dee ndax dañoo préparé dee ko si moo tax jigéen da ngay takk jigéen joo xam ne su fajar jotee boo buggee biddanti mu yee la bu déggee asalaatu xayru mi ne noomi waxuma sax asalaatu xayru mi ne noomi cinq heures du matin sa soxna yee la ne la jamaa o ɓe noddini ummo wiya ko joni armi komi tampuɗo seeɗa mum ala ala ummo ummo ummo ummo o potama sohda ummoɗa kono resamo anduɗa so wi assalatu ya ummaɗoyma nantoɗa nataga nder mbajju
moƴƴiraaka
jiraak bis boo reppee ba takk jigéen joo xam ne day dégg asalaatu xayru bi nenal nga bëgg a jóg mu teg la la wax ni jaay ba nga tëddaat bis a ngi ñëw dina yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu ko jàkk ba déggu leen ma wax de déggu leen ko de ma ne ku fi jigéen tere dem jàkk fajar bis moo ngi ñëw jigéen bi dina yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen ko ƴettema joni noon nawa jama
fekk sa trop tard jellen ko léegi ngeen yóbbu jàkka fo bobban bis la
ɗum udde oye bisudee an nga bisudee doo fanaan ci kaw lal bi lu guddi gi guddi guddi guddi guddi ndaw si dana yuuxu ñëpp ñëw ko wani mu daal leen di joxoñ ñu daal lay jël buñ la jëlee buñ la yóbbu pourtant mënoon nañoo bàyyi ba bërsëg ñu bàyyi nga fanaan foofu moom ndaw si lu tax nanguwul fanaan ak yow ba bërsëg lu tax nanguwul dangaa dee rek mu yuux nit ñi ñëw jël la yóbbu la kon nag ku déggati asalaatu xayru min an nawm ku déggati hayya ala salaat bàyyi sa soxna demal nga wuy ji yow la ñuy woo yow la ñuy woo de bilaal bi yow lay woo yenn saa yi nga dégg benn waaye bu dégg bilaal li ma paa bi yàlla na dee rek salaatu day yokk rajo bi kenn du dégg bi yenn saa yi nga ne kuy ñaanal bilaal yi dee te bilaal bi ndeysaan jàmm rek lay def yow lay woo lu baax rek la la bëggal bi mu lay woo xam nga lu mu la wax hayya alal falah loolu mooy lan mooy ñëwal ci texe bi ñëwal pour nga texe ar maleda ar ar maleda loolu la lay wax hayya alal falah kon takkal soxna boo xam ne dafa am diine soxna boo xam ne daf lay daf lay yokk sa diine daf lay yokk daf lay yokk am na benn borom xam-xam boo xam ne dana dem jàngi muy dem di jàngi ci sëriñam ba benn deux mois jàngiwu ba benn bis rek mu ñëw sëriñ mu ne ko yow foo nekkoon ma damaa nekkoon ci ay problème ban problème mu ne sama jabar moo gaañu woon mu ne sa jabar gaañu munoo ñu koo wax ñu ñëw jàppale la ci sang bi ci suul bi bokk ak yow dëj bi mu ne waaw xam nga rek damaa fàtte naa léegi nag mu ne waaw ah, pare naa léegi alhamdulilah moo tax mu ñëw jàngi si mu ne léegi nag ndax pare nga pour takkaat jabar mu ne man kan moom mooy may jabar man dama am dara man sama téere bi rek laa yor nu may takkee jabar borom xam-xam bi ne ko dinaa la may sama doom ñu jàng ba pare rek mu ne ko may naa la ko kooku ne ah kii xam naa daf may seetlu rek daf may seetlu rek ah man mii ko may may jabar waa ji dem ñibbi guddi rek ñu fëgg buntu këram mu ubbi rek sëriñ bi ñëw ànd ak doom ji mu ne kii laa la may mi ngi nii mu ne subhanallah ndeke naxoo ma mu ne man man man ma nax la man yow ma xam la ma lay jàngal sa jabar faatu ma lay may sama doom danaa la nax mu ne waaye kon xaaral naa ko sama yaay man waxuguma ko kenn mu dem yee yaayam guddi gi yaayam ne ko maa ngi giñ ci yàlla boo laa boo jegee xale bi ci guddi gi rek dinaa la bàyyi àdduna ak àllaaxira bàyyil ba ma ñëw ma préparé ko comme ni ñuy préparé si bàyyil ba suba ñu wax ko dëkkandoo yi ñu préparé seet bi donc daal di bàyyi yaay ji daal di ñëw préparé ko ñu wax ko nit ñi ñu préparé mariage bi après waa ji daal di bàyyi jàng dafa waroon continuer jàng wala waa ji daal di bàyyi sëriñ bi bàyyi jàng ah ba benn bis rek sëriñ bi ñëw mu ne ko waaw yow yow yow jàngee seetoo di mu ne lu may doyee jàng mu ne ah mu ne yow nga may ma borom xam-xam bu guddi bu nekk mu may jàngal lu ma doon ñëw ci yow léegi sama jabar ma may jàngal lu may foofu ah wax na dëgg xale bu jigéen bi moo ko raw mu ngi koy jàngal léegi jaan xale bu jigéen bi mokkal na téere yëpp waaye nag boo takkee jabar boo xam ne nijaay yow xaar ba poojal la au lieu au lieu ñu lay jàngal yow dañ lay poojal fecc rek wala yow sax boo ñëw ñu naan nijaay feccal balaa ngay tëb see di nga fecc nga waay bàyyi li ngay defar foo jëm ay au lieu ñu ne la jàngal wala kaay jël das waaye dañ laa dara dara doo nga maa seeda aja bisimilla fuɗɗo ñilayta nga ari ay o ko watta ko ñina yifa ande sa amani sa amani a dañay probléme mi daa dañ de probléme bopp rek anan yàlla dimbali mbokk yi kon nekkee yonent bi fu mu ñu rëddal nañ fa jaar suñu jaaree duñu am problème wax nañ ñu ban yoon la ñuy jaar balaa ñuy am doom nañu tànnal suñuy doom yaay balaa ñuy am jëkkër nañu tànnal suñuy papaay doom baay kenn ku nekk ci ñun war ngaa rus say doom ñoo ne la yow papa yow yaay papa xanaa yow bi ngay am jabar gi dëkk bi amul woon ay jigéen nga ni ah kay ñu ne la waaw naka kon dëkk bi yëpp amee jigéen ngay jël jigéen bi ba mu ñuy jur muy nekk suñu yaay kenn ku nekk ci jigéen ñi war ngaa mooy tëndiku sa doom ñëw ci yow naan la yow xanaa bi la kii di takk dëkk bi amul woon ay góor nga naan ah kay amoon na ay góor kay waaye xam nga rek loolu musiba la xam nga loolu mooy ñàkk a kontaan ci baay jooju wala ñàkk a kontaan ci yaay jooju ndeysaan am na benn sàcc Égypte dañ ko jàpp ndax ni mu sonale woon nit ñi ñu ne ko yow dañuy dagg sa loxo ndax yow dëkk bi dama leen a sonal mu ne su ngeen daggee sama loxo foog ngeen dagg sama làmmiñu yaay ñu ne xanaa dangaa dof sa yaay lu mu def dafa sàcc mu ne ah kay sama yaay moo ma entraîné ba may sàcc ñu ne naka la la entraîné mu ne bi ma nekkee xale bu ndaw ma am juróom-ñaari at damaa dem suñu kër dëkkandoo ma fekk ginaar gi muy nen ma yëkkati ginaar gi ma sàcc nen bi ma dugal ko ci sama poqataan ma ñëw ma jox ko sama yaay sama yaay daal di saraxolle ne sama doom bi jàmbaar la ba defe ne sàcc baax na mu tax léegi may sàcc kooku kan ngoon ko encouragé ba mu nekk sàcc yaayam kon gis nga yaay dafa foor yaay du lu tuuti looloo tax balaa ngay am jabar fexeel nga tànn laa tatazawaj hatta tajid nafsaka qadir ala an tanshia abnaika fi man munahi lislami sahih baidan an taasub wal harbiyat azaida ala luzum bu takk jabar mukk lu dul nga xam ne mën ngaa préparer say doom benn benn environnement c'est islamique ah ah ah bul takk jabar lu dul nga mën a préparer say doom benn environnement islamique gis ngeen loolu c'est très important boo demee nga takk jabar nga indi ko ci benn environnement boo xam ne dañuy tëgg di fecc ay rappeurs ñoo fa nekk ay góor yuy kiris karas ay faa ay jigéen yuy paccal ay maire yuy xappati ay paa yuy oo di tent seeni bopp di xëcc cigarette di dox sa doom bu juddoo foofu nu muy mel foog mu mel ni ñooñu kon nag balaa ngay takk soxna fexeel ba nga xam ne bu soxna si ñëwee yéen ñaar di ngeen nekk ci islam environnement bi ngeen nekk islam moo leen di wër su ko defee incha allah su ko defee xale bi buy dund muy dund ci environnement boo xam ne c'est islamique moom ak yaayam rek même boo fi nekkul yaayam ne ko demal nga julli ci mu jóg julli dafa am benn xale boo xam ne yaayam da ko doon wax ne saa yoo wàccee balaa ngay def dara demal nga jàpp nga ñaan yàlla nga doog a añ demal nga jàpp nga ñaan yàlla nga añ xale bi depuis depuis depuis jardin première année deuxième année ba mu dem CI bi mu demee CP mu wàcc benn bis rek fekk yaam dafa dem hôpital yaam def feebar ci guddi gi dem hôpital moom mu wàcc chaque jour nag li mu tàmmoon mooy bu jullee tisbaar ba pare rek añam day tegu mu añ tey nag mu wàcc ndeysaan fekk yaay ji ci kër xelam daal di dem ci ne saa yi ma wàccoon li ma sama yaay njëkk a wax su ma rangé samay bagage pare mooy dem jàpp julli doog a añ xale boobu dafa dem jàpp daal di julli bi mu jullee ba pare normalement lan la waroon def añ waaye tey kenn nekku ci kër gi ko togg togg añ waaye xale boobu dafa dem julli ba pare sëlbar rek mu dugg fi mu doon añee mu fekk añ bi tegu yaay ñëw fekk mu yeñ yaay ñu mu ne subhanallah Mouhamed kan moo la jox añ ne ah yaay toggoo añ bi ah man de li nga ma wax laa def yow yaa ma doon wax soo wàccee demal nga raay sa bagage nga jàpp julli nga ñaan dem naa julli naa jàpp naa julli naa pare ñaan naa ma dugg ci néeg ma fekk añ bi maañ nit day tàmmal doomam lu baax tàmmal sa doom diine tàmmal sa doom l'islam gis nga ñu bare bari tey seen doom ñi nekk ay jaaxankat coupé ko coupé ko su ko defee tàmmalal sa doom lu baax fexeel ba boo amee doom nga yar ko ci yoon boobu nga xam ne ëllëg ak si biir dafay jaar ci raay boo xamante ne raay islamique la même bu la gisatulee même bu la gisatulee même bu la gisulee day jaar ci yoonu islam waaye tàmmal sa doom lu bon loo xam ne ci kër gi la ko jàngee su demee ci mbedd bi di ko def su demee ci biir dëkk bi di ko def loolu lislaam bëgg ko moo tax ñu ne la bul takk soxna lu dul nga préparé soxna si bu ñëwee ci jaww yoo xam ne jaww islaam la kër goo xam ne këru islaam la koñ boo xam ne wala ngoo nga mën a jël yow say responsabilité ci loolu yëpp mbokk yi beneen dénkaane bi mooy laa tatazawaj bul takk soxna lu dul hatta tajid nafsaka muhtammun bi diinik qabla dunia bul takk soxna lu dul sa diine yitteel la balaa sa aduna bul takk soxna lu dul sa diine ne la yitteel balaa sa aduna di la yitteel ñun nag dañoo inversé affaire bi sunu aduna moo ñuy njëkk a yitteel après sunu diine damaa xëy suba benn benn bis rek may dem jàkk rek ma gis benn booy boo xam ne daawul dem jàkk suñu koñ ma gis ko ma julli suba gis ko ma julli tisbaar ci jàkk ji gis ko ma julli tàkkusaan gis ko ma ñëw timis gisuma ko ci suba seen yaayam xëy mu ne ma Ahmed de tàggu na la quoi dem na tukki démb ci guddi ma ne ah
dama bëgg a tukki. ndeysaan.
kii kay ndeysaan ndeke tukki bi moo doon fan yi mu song jàkka ñi
wallaahi.
loolu mooy ah xaaral ma xaaral ma normal balaa yàlla di yàq affaire bi xaaral ma normal léegi nag boo normalé après affaire bi am nga ne ah yàlla merci beaucoup jërëjëf waay léegi nag affaire bi baax na dégg nga affaire bi baax na de après waaw su ma toogaatee ba soxla la rek ma ñëwaat dégg nga loolu mooy islam waabu rabbak jaamul yàlla ba dee fekk la ci jaamul yàlla ba dee fekk la ci ixwatal iman nanu sunu diine yitteel avant sunu aduna di yitteel ab julit diine moo koy yitteel avant adunaam ndax aduna moom loo am après fi nga koy bàyyi léeg-léeg ndeysaan nga gis ku génn aduna ñu ne bàyyi na cinquante kër bàyyi na parking oto nangami compte banque nangamu milliard après bi muy dem ñu koy yóbbu àllaaxira lan la yóbbaale dara ndeysaan dara lu dul juróom-ñaari mètre percal ak witteen ak parfum ak ay buum yuñ ko takk te kuy génn àdduna lépp fi nga koy bàyyi waaye am na loo yóbbaale de waa àdduna ñoom dañuy taxaw naan won won koo woppi kanko mbele won koo woppi ɗo laakara ɓe daroɓe wiye kanko holko addata gaay holko addata gaay ɓeene wiye holko woppi ɓeene wiye holko addata waa àdduna dañ naan lan la fi bàyyi waa àllaaxira naan lan lay indaale ndeysaan fekk lan lañ war a indaale mbokk yi mooy tiyaaba yu dul jeex benn waay dafa dem ci benn borom xam ne ko dénk ma waar ma waay waar ma waar ma waay mu ne ko fexeel ba aljanna bu la fa kenn jiitu fexeel ba bul ñëw aljanna fekk mu fees ba bu doo am foo teg sa tànk loolu nag mbokk yi dafa laaj lan loolu dafa am lu mu laaj mooy lan la laaj góorgóorlu loolu lan la laaj yitte loolu lan la laaj mooy def effort jaamu yàlla te jaamu yàlla dafa yomb ñu bari yenn saa nga dégg ñu naan jaamu yàlla dafa métti jaamu yàlla lan moo ci métti ban heure lañ julli woon ta tisbaar ban heure lañ julli taafsaan ban heure lañ julli taafsaan dañu bàyyi xel bu baax a baax sunu diine lenn bu mu ñu jaral sunu diine lenn lépp la la sa diine yitteel su fekkee sa diine yitteel loolu rek da ngay am problème waaye xam ngeen ne nit ñi tey diine diine dañ ko suufeel waaw su benn waaye ñëwee ci kër gi sax daan ne assalaamu aleykum dañuy mais de kanko ko arabi saudi doo won noo ah boo assalaamu aleykum waaw kii lu muy arabal ni yow kii lu muy arabal lu muy kii ni man nit ñi ñoo bëggul diine benn waaye day joxe misaal mu ne diine fu ko nit ñi teg mu ne mu ngi mel ni ku am oto bu bees 4x4 ñu indil la ko bees tax balaa nga koy dawal di ko yóbbu longue voyage foog nga préparé ko xool roode ko ba nga xam ne miin na nga doog a dem léegi nag waa ji di roode oto bi jabar ji ne ko yóbbaale ma ne ko yéegal doom yi ne ko papa yóbbaale ñu mu ne yéeg leen ah oto boobu neex na de ah yaa ngi ci oto bi sa jabar mu ngi ci doom yaa ngi ci ñu dem ba ci yàgg ci kanam am ku ñu gis ci yoon bi mu taxaw loolu ñu taxaw mu ne yóbbaale leen ma ñu ne yow la kan mu ne man la seefaa ñu ne eh, soyez bienvenue ahlan wa sahlan yëgal mbokk yi kuy tukki yaa ngi ànd ak sa jabar yaa ngi yor 4x4 bu bees tàq yaa ngi ànd ak sa jabar yaa ngi ànd ak say doom am nga seefaa lu des tukki boobu dina neex wala day naqari ah ñu day niroo loolu ñu daw téeméeri kilomètre am keneen ku leen taxawloo ñu taxaw du ngeen ma yóbbaale ñu ne yow la kan mu ne man la euro ñu ne yéegal yéegal yéegal yéegal yéegal mu daal di yéeg ñu daal dawaat téeméeri kilomètre beneen waaye estabelé ñu taxaw yow la kan mu ne man la dollar ñu ne allah naka gars yi di waxee ahlan wa sahlan welcome lan en anglais si خلاص خرجت من الإنجليزية تدرسون الإنجليزية في فلا أم لا gis nga ndeysaan ñu ne yëgal yëgal yëgal dollar yëgal mu daal di yëg ah tukki boobu neex na de jabar bi mu ngi fi doom yaa ngi fi CFA dollar euro euro euro yëpp a ngi ci oto bi ñu daw daw daw daw daw ba ci kanam beneen waaye arrêté leen benn ponkal mi ngi sol yére yu weex mi ngi sol mi ngi yor ci loxo ndeyjoor bi kaamil mi ngi yor ci loxo gauche bi siyaada ne du ngeen ma yóbbaale ne yow la kan mu ne man la diine mais diine diine diine diine oto bi fees na bi jabar ji ñëwee la lañ ko wax yéegal doom yi ñëw ñu ne ko CFA ñëw ñu ne euro ñëw ñu ne dollar ñëw ñu ne diine ñëw ñu ne oto bi fees na allahu akbar mu ne ma yéeg ci kaw ñu ne da nga bëgg gendarme yi jàpp ñu mu ne ma yéeg ci maal bi ci fi ñuy denc valise yi ñu ne ko bagage yi ñoo fa nekk quoi xëy yoo fi no xam nga nu ñuy def ah non da ngay taxaw fii bu ñu demee ba def demi tour quoi après dinañ la jël si dégg nga ñu ne dañuy nax diine ah, te ngeen maa yóbbaale rek non non non oto fees na tamit toi diine daal di taxaw ñu dem ñu dem téeméeri mètre benn ponkal ñëw taxaw waa ju mel ne guy mu ne yóbbaale leen ma gars yi ne mu ne man bu ngeen ma yóbbaalee damay dem bu ma ngeen ma yóbbaalewul damay dem far force te sax yéen ñi laa jël si ñu ne yow la kan mu ne man la dee ñu ne lan moo ñuy musal mu ne diine rek moo leen di musal diine ñu ne ah, xaaral ñu def demi tour diine mu ngi mën a jël ko mu ne non kalla kalla kalla yàlla wax na ko kalla hatta iza jaa ahaduhumul mawt hatta iza jaa ahaduhumul mawt qala rabbi irji'un la'alli أعمل صالحا فيما ترى يعلمون كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون xoolal waa ji lan lañ ko wax tey moo koy musal diine fan la bàyyi woon diine ginnaawam ñun ñi ñëpp noonu lañ mel fi mu nekk nii gis nga kër goo xam ne dafa am ku fa dee ñëpp dañuy normal kuy wax sax ñëpp teg waaye boo demee 3 jours 4 jours 5 jours après nga ñëw ah mun tax léegi ñëpp di yuuxu am waxal ak moom waaw mbokk yi maa ngi leen di dénk na la góorgóorlu suñu diine amuñu lu ëpp diine diine moonu mun a sauver àdduna diine moonu mun a sauver àllaaxira fu nuy dem nanu nekk yanu yor suñu diine lu nuy am nanu am diine lu ñuy bàyyi yàlla bu mu nekk diine mbokk yi ku am yàlla am nga lépp ku amul yàlla perte nga lépp ku am yàlla am nga lépp waaye ku amul yàlla perte nga nanu xam ne takk soxna jaamu yàlla la du noos du puukaréew du gis leen ma du am naa jabar du am naa jëkkër du tiitaru waaye jaamu yàlla la ibaada yonent bi nee na ku am soxna sa genn wàllu diine mat na ragalal yàlla ci beneen genn wàll gi ku am soxna sa genn wàllu diine mat na kon ku amul soxna amoo dara amoo sax yow genn wàll
ndeysaan yooyu doo toog ba ci yàgg mu ne ndeysaan maa ko yërëm miskin miskin miskin salaasa marra yërëm naa ko yërëm naa ko yërëm naa ko saaba ne yonent kan nga yërëm mu ne góor gu amul jabar yërëm naa ko ñetti yoon ñu ne yonent kan mu ne jigéen bu amul jëkkër ndeysaan ndeysaan yal na yàlla yërëm ñi amul jabar yal na yàlla yërëm ñi amul jëkkër asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah musidɓe tedduɓe ko jolfuɓe ɓe ginnata noppu dalotina siko no haalorta mi nanano jolfe moƴƴa e fa tabarakallah ahsanul haliqin wallahi ayi fewndo ɓe hewti tum ɓe makanno en hiɗo weltori mum taqa wallahi ko enen ɓuuri weltorde mum taqa e ko- ko gestu gotum ɗum mi andintinta ɗo seeɗa ñande go ko watten ɗo conférence on ka suuma e woodi no waaji goɗɗo nodduɗo mo no arsela mo kanko mum taqa woodi goɗɗo noon no innama a wotta tewtuɗo moyne ah oyne ñun ay ay- ñun taalibe saidou li lañu waji def ko woodi ko arsalidi ko wahyu way moom mu kiire ɓe ɓenen waaji wo kone ko ah lay bul ko topp ɗugu commencé noon ah ne de mu ñun taalibe saidou li lañu wallahi enen kadi e weltori ko won taaliba yo allah hebbin taaliba makko ka mana ka mujtama meɗen sabu noon yen anndi yer wonɓe toon ɓe alhamdulillahi haray ye nafitorde ɓe moƴƴa haray ɓe yewti en ɗo yewtereji machallahu wasiyeji ɗi tawata wondema anndunoɗo annditi mo anndano kadi anndi yejjitunoɗo annditi e ɓe haalani en ɗo wondema no fuɗɗornoɗe yewtene al noon ko hombo haani jombude e an jombo won taw est ce que an koya artu naata e muɗum ni nala ni ɓe haalani e wondema fokka woda ko prépare uɗa e hoorema taw prépare o ɗa environnement mo wonɗa e natude e muɗon anda ko honɗum woni dewgal taw ni an gorko ni an suddiɗo saabu no responsabilité ji ɗi no tiiɗi responsabilité ji ɗi no tiiɗi dongal ngal no tiiɗi laawol ngol no woɗɗi ko ɗum waɗi no wirnoɗen ko aranu no wondema ɓayli haray kala resowo siko saggo muɗum koɓe wonɗu ha allah subahanahu wa taala ƴettitira goto e maɓɓe ɓana ƴettita goto e maɓɓe taw hara mana wandanɗa hoore ma komo wuritata e gurdam on hana suɓede suɓe sutte kadi kono noɓe holliri en no wondema joni fandareji ɗi maksadiji dewgal ɗin ko ɗin manki ko ɗum waɗi si dewle ɗen no e gawayni ko ɗaɓɓano e dewgal kon e ko waɗayno ha goɗɗo jomba walla ha goɗɗo jombe kon ko ɗum iwi e ma ɓe ɓe laɓɓinani en ɗum bos machallah haray tigi tigi en ala e ɗuɗɗude ɗuɗɗinde ɗo sa yewtere saabu noon sa nani wiyete wondema laɓɓingol ko laaɓi ko tuningol ɓe makani en e pulor ɓe makani en e olof tawi miɗo andi ɗo ɓurɓe hewde en nona olof ɓe nanta olof en mi andi ɗuɗa ɗo si'no ga amo yewtere nden alhamdulillah rabbil alamin ɗin haray koko mi yewtata tu wondema si yewtere sugu nde waɗi goto fof e meɗen yo andu wonde a fewdo ɓe hewti hari ko ɓoggol waɗɗen ka dande maɓɓe joni noon alhamdulillahi kamɓe noon ɓe ɓortike ngol joni noon nde ɓe ɓortingol ko enen fof ɓe bugitingol joni goto fof e meɗen ɓoggol ngol woni ka dande muɗum jombuɗo o jombaɗo o sutaɗo jombede o ngol woni ka dande maɗa goto fof eme yawmal qiyama landoyte ene a tawano conférence o gueeƴe wawi e samedi e mi tawano ustad on yewtuno hi yewti faminino hi nanino hi joni noon ko honɗum gollitirɗa allah subahanahu wa taala wallen taw haren gollitiri ko yewta ɗo kon saabu noon no wirɗen noon nokkure weeli wo nokkure weeli so tawi ko islam fof daɗɗi daɗɗinde hande noon aduna on ka won ɗo ni ko féministe ɓe ko weeɓe no wowla haalaji goɗɗini ɓe luɓo islam ɓenna ko ɓe weyna ko kamɓe jeeyi hara wona ɗum ko fawi en ɗum noon ko mak- mankugol andude julɓe ɓe diina muɗum kam goɗɗin ɓe adda ɓe posa e meɗen fi hon ɗum saabu andu ronkugol andude enen ko honto tegeten koyɗe meɗen ne ko ɗum waɗi sino hanani en yeƴƴitade yiltito dartido hoore meɗen daren mana jangge islam meɗen mum ara inchallahu taala miɗo darna wano ɗo haray siwona ko saabu weltagol rek ɓeydita ka weltinoɗon kadi no ɓe makirno noon ko fuɗɗode ara en torano musidɗo on e kala musidɓe wonɓe natude e dewgal kesum yo allah subahanahu wa taala waɗanɓe barke e dewgal ngal yo allah subahanahu wa taala junnugode maɓɓe moƴƴina battane o waɗana ɓe dewgal ngal andanɗa hoorema ko dewgal yettangal ko allah subahanahu wa taala e ka julɓe haray ustad men kadi no ɗo ɓe tooliɗo inchallah haray jonna ɓe konngol sino kalimaji ɓe bugo inchallah yeeso muɗum après yakko ka mbiya hay joni tafsir